asalaamaaleykum man la ma numbe dal leen ak jàmm ci xibaaru ma numbe ak ñànku fii ci chaîne bu mag bii di Africa Global Express TV. ayca dal leen ak jàmm fii ci ak ah, Africa Express Global. Africa Global Express TV. Africa Express Global. Africa Global Express TV Africa Global Express TV. ex waaw Express TV. waaw nga xamante ni fi la xibaar yi yu baax yi nekk. tey sama xol neexul. na ci li gën a fës ci xibaar yi mooy fee ci ka kutaal ba nga xam ne ñuy ndeysaan waa ba waa quoi prisonniers yi dañoo xëy grève grève boo xamante ni nangu tuñoo lekk nangu tuñoo na oh. fu ñu dala nga xam ni ah, foofu noonu am nañ ay jafe-jafe yu ñuy dund foofu buñ fa jógee bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi nga xamante ni ñoom ñooy campagne bi daanaka ni tijji na nii actuellement ñi ñaa ngi ci nii ah, coow laa ngay wéy xam nga ngay uti oto yuñ caravane ñee di ay musiciens xam nga ñëw jël wu jëli artistes yi xu mbumbaay mi xaalis bay jaaba jolle xam nga ñi ñu leen sol sol tiseet yeeg yu mel noonu xam nga fi mu tàmbali na ñu dañuy wax li nga xam ne moom mooy actuellement nii corona baa ngay jóg ndànk-ndànk ba pare quoi campagne yi ak naka la ko président république di di doxalee ak naka lañ koy doxalee ñun ñi nga xamante nii ah mooy mooy corona bi te day wàlle ak mbumbaay ñu dem te ñëw yaatal li nga xam ne moo gën a ci xibaar aca ma ne mu ngi noonu la xam ne moo ci gën a fees nag tey ji moom la ñuy yaatal dañ ah, ah, mooy kaso kaso kaso fële kutaal mooy mooy waaye après Kaolack kutaal kutaal ah, bo la nekk foofu na xam ne ci tàngoor di lay ba pare boole kook seen yi ñoom nee nañu baaxul xam oh. dañuy lekk ay lekk yoo xamante day am ay sax ay gunóor Ah, ah wax dëgg yàlla ah, ah ñiy feebal duñ leen fac après ñu doon nañ nañ dem xool. ñu dem xool ah, bool yaa ngi nii bool bi ni ñetti ration la ñetti personnes ñoo si lekk bi ñetti personnes ñoo si lekk gis ngeen lii gis ngeen li bi six personnes ñoo si lekk gis ngeen lii ah ceeb bu bon bii kaso baa ngi nii kenn xamul lii la la dañoo sonn barki Serigne Touba Mbacke bool bii nii ay sax ay gugunóor ñu dañoo sonn ci kaso bi. gars yi ñëpp a grève kaso bi ñëpp a grève malade yi war a faj fajuñ leen bilaa walaay taalaay ñëpp a sonn dañoo sonn ci kaso bi ñooy kaso kutaal. ñoo yaay ñoom ñoo yaay grève grève leen ba mu neex leen parce que lii lii lii nit nit ñu ko jox lii. waaw parce que tamit xam nga gars yi par exemple dañuy ah. Ah, lañu. vraiment quelque soit alpha ñu ay lañu. vraiment vraiment moo bind nit ci matadi matadi. Oh. xam nga matadi. matadi waaw. waaw nit ko nit matul. Oh, xam nga ma. Hmm. nit na pas parfait. parfait ah, nit matul. waaw léegi nag say matadi googu noonu moo waral nit juum. lii ma juumee su juumee ñu jël ko laax ko. xam nga la mooy xam nga la mooy diggante policier civil ak kaso lan la. waaw mooy mooy suñu suñu biir dañoo tànn ñoo xamante ne ñoom ñooy takk deel yi mooy ay policier. waaw si ñun suñu biir koo xam ne dafay juum mu jalgati loo xam ne waru koo def. waaw ñu ñu kalaame ko ñu woo ko. ñëw jàpp teg ko eh, bu ñu ko jàppee xayma li mu def li mu juum ñu natt ko ci temps bu mu war a def dala bu mu moom boppam ñu ut fu mu ko denc waaye jox muy lekk jox muy naan yaa eh, bu la ñu delloo si ko pour ah. su ñëwee mu bañ kaa defar ah. loolu kese lay tekk waaye tekkul na ñoom duñu ay nit ah, tekkul ne tekkul ne dañoo war di lekk di naan suñu feewal dañoo war di faju di am jàmm wax dëgg yàlla ndax ñoom suñu génnee am na ci ko am na ci ñoo xam ne suñu génnee dañuy ñëwaat suñu di servir léew mi mm-hmm. kon nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi waxee Koutal Koutal noonu la ñu campagnat bu Dakar. fépp noonu la mel Lëbës. fépp kay kaso yi Sénégal yi yëpp nañ leen bàyyi xel xam nga booru ñu leen di leen ah. parce que ay nit lañu te ñi leen ñoom ñoom ay ay ñoom lañ ay doomu Sénégal vraiment vraiment dégg juum rek ñu daan ñu dañ te boobu da a métti waaw léegi nag loolu ndax bu Koutal boobu tàng na xat na waaw bari na ba pare lekk ba demee wut noonu. waaw ñu ñu ñaan ñu ñaan président de la République excellence mu bàyyi leen xel bu baax ah. baax a baax noonu jombul kenn ñu koy dugg ñu koy lekk ñu ah, koy lekk ñoo ay nit lañ comme ñun waaye nag di lekk ay ginaar ay soos ay hamburger ay yooyu appel bon bonne volonté la nekk ci réew mi seen seen yi ñu def nañ ko a yokk bu ñu ko wàcc bu ñu ko wàññee nañ dem di ñeet ñaar ñoo xam ne ay lapol lañ ku ñu wax ah, Fou Malade Fou Malade ah ak kon k Dablente Baxaw waaw Baxaw Baxaw ñu ngi ci nekk waaw ñoom dañuy nemmeeku dañuy nemmeeku di tuñu lu bëree bëri waaw maa ngi waajal benn projet bu tudd waa ah, prison tour tour prison waaw def prison yëpp lay wóol tour yóbbu leen ay don ba pare di spectacle bëggal leen maa ngi koy maa ngi ciy ànd ak Manoumbe. incha allah loolu di wax waaw pour pour pour gars yi ñu ci Sénégal incha allah Manoumbe suñu jógee foofu. waaw dañuy dem ci coow li nga xam ne mooy lëmbaléew actuellement nga xam ne fi mu toll nii dala ñootul kenn ndax politique bi campagne bi na ndax fi mu ñi ñu ngay commencé léegi di di di préparer yi. oh waaw ñàkk coow laa di suñu xam ba tey jii nga xamante ni coow la coow la xam nga lu tax mu doon coow mooy fi nii kenn ku nekk sa bopp nga tal mooy kenn ku nekk da xool noo mën a fexe ba gañ nga def ko noo mën a fexe ba ba nax nit ñi pour gañ loolu ko tuddee man nax nit ñi noo ba nax nit ñi ba jël mairie bi waaw parce dañuy nax nit ñi day naxaale seen li ñu waxoon faloo def ñu dara. waaw da nga doon doon gis sax. gars yi fi mu përët yi nii koo ci woo mu wuyu. koo ci seeti mu recevoir la mu ba pare ñoom ñooy dox seen tànk di buñ faloo ci nga a gisaat ba. ba ba campagne jotaat. loolu la fulus la loolu falu maire ak politiciens yi yees nañ bàyyi loolu jikko yoonu ah, loolu ñu gën nga gën nga ak nekk nekk du daal ne autorité kese nga. vraiment nekkoo esal nekkoo daal. Ah. waaw a war dox sa tànk ñi xam la ñi ñi tamit dañoo war a ñi ñi tamit ñu ngi xel ci ay sànnante xel ak. waaw jalul. parce que ñoom ñoo ciy gaañuwaat rek ñoo ciy faju juwaat. jalu ko. waaw dala jalu ay xel ak eh, man man man du ma xel. déedéet ku ma man nañ topp ci mumbaay bi daal yuuxu. waaw ngeen àndal ko ngeen àndal lii lii. waaw xeer moom ay affaire affaire rek parce que ki war a yàlla teg na ko ba pare. gagné na mi affaire de sabablu la. yaa ngi dégg xumbal. yaa affaire bi noonu waaw pour mu neex. yàlla loolu kese la. kese waaye ki wala fal yàlla xam na ko. fi mu am na si ñoo xam ne da ngay jël gars yi dañ ne ku ku koo na ñoo xam ne koo yu ñëw wuyu si la. waaw bañ gàcce ba

tax nga def ko billaay fal falal ko bi falal benn nit yàqal commune lu mu warul war nañoo xool koo xamante ni xam nañ ni am na xam-xam am na capacité def na ay performance ñu jël ko jox ko maire bi mu doxal ko des fois da ngay dugg ci koñ ñu ne xanaa koñ bi amul monsieur le maire te ndexet lamp yi duñ tàkk tali bi du baax foofu daal dara du fa baax nga dugg ci kël maire yi seen courant di coupé seen seen léeg-léeg seen seen fiir courant yi nekk ci nangañu noonu baaxul oh, xoolal lool buntu buntu maire yi ngay jaar bi pax yi duñ sax tal fi ñu defar sax ku ci gañ xam ñu war a ñëwaat ñoom ma ñu nañ ko xam ne dañ koo faloon ñu defal dëkk bi mën na nañ koo fal te mënut pousse leen ko fa waaye xool leen koo xamante am ngeen ci moom yaakaar bu baax ngeen fal ko. kese waxalu leen lu mu dégg. kese mu loolu. te yow yow miy falu tamit nga déglu nit ñi liñ lay wax. nga xam conseil constitutionnel. Ah. am na commune bi fal kenn ñu dem ba ci biir da kiiwuñ ko. ñu dindi ko ñu ñu ñu dem. Ah, signalé ni kii liggéey ah, liggéey am na article bu commune bi yëpp d'accord nañ ñu jóg gouvernement dafa war a wàcc ñëw folli ko ñu ñu fal feneen keneen. kese loolu am na conseil constitutionnel. am na ni ab maa la man man lépp la jëm ci conseil conseil dama dama koy ah! am na ñu ne kooku avant mandat yi ñu jur ñu tegg ko ñu fal keneen. yaa wax lii waaw waaw man mii man man man ñàkk fa baa ngi lëmb dëkk bi te ñi ñu ko xam. coronavirus. la ko fi mu toll nii ak campagne yi di ñëw. waaw nii ëppal nañu 500 cas. loo ni. waaw ñu ngay jëm ci 600 cas. fi mu toll nii ah! am nañu dese. am nañ ku dee am nañ ku dee

du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mercredi 5 janvier 2021, 2022 du moins, sur 2398 tests réalisés, 520 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 31 cas contacts suivis par nos services. 3 cas importés ont été enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise de Gaz. et 486 cas issus de la transmission communautaire ont été notés, dont 367 notifiés dans la région de Dakar. Voilà. corona baa ngi ci dëkk bi de a ah, ah, gars yi ah, bàyyi ko xel wala <laughs> ay masque rek. te bañ nga ne la kii campagne ñu ngi demee. ah. mbooloo mu bari nga ñëw eh monsieur loxo yi. wàll naa ko dem wàll kii. loolu la. loolu la ah, waa ñi ñoo corona bi. corona ah. bi tàmbal ñu ngi fi mu ngi ci dëkk bi. mu ngi ci dëkk bi di wax nit ñi porter les masques. laver les mains. laver les mains. waaw porter ñu waxaat ba tey jii euh, activité yi moom kenn mënu ko tere kenn. déedéet waaye masques yi buñ koy fàtte. waaw. distance ak gel incept yi. waaw distance. distance waaw. ja campagne bi mën a am distance nag. jàkka yi est-ce que ñoom ñu ngi def distance. jàkka yi am na ay jàkka yu def distance waaye am na jàkka yoo xam ne ba léegi. jàkka yoo xam ne ñu ngi laataloo rek ñoom. ah, <laughs> ah loolay def. ah waaw comme comme wax duñ ko waxee corona bi. Ah. waaw corona bi mu ngi fi nag. mi ngi fi waaw. mi ngi fi ba léegi saa bi ñu tëloon ñu ngi koy tëloo ba tey. waaw waaw. li ñuy wax mooy campagne bi. Hmm. sooy bu sayoo nekkul ci campagne. dama nga toog kese. te nañ dem jël vaccin yi loolooy dëgg maa ko wax loolu moom maa ko wax président sant ma kenn sant ma maa ko jël sama sama initiative boobu ma wax. vaccin yi jeex na de. vaccin yi gars yi sax. am na ñu vacciné de. ma ne la yaa vacciné lan. <laughs> kaay ñu leen jox dig daje beneen numéro incha allah rabbi di leen wax ne ñu ngi ñu waaw ah, kay. déedéet wàllu ñànku ñànku ba segg la ko xal émission sax dina fa ngoon journal ah, fii ci Africa Global Express TV di leen jox dig daje di leen wax ne ngeen a baax baax masque yi ak ak laver mais corona baa ngi ci dëkk. te boo fi jógee day faat nga vacciné wu nga vacciné wu